بعث عبينا ثم خلق الله نبينا وصديقينا وسودا وصالينا من درة البهجة أنوار ذات المصطفى فهو خمر وكل النور كواكب إذا ثم جمال أنبياء بهدرة القدس واختارنا يوم سادس القدس وزاد الإيمان وعلم من فقالوا ربنا من خسينا نوره فقد على نور محمد الذي الذي الذي ولعكم عقد النظام إن من تبي جاتكم مليون كم يا رسول الله يا حبيب الله خسر العالمين به كسى جميع البرايا من بدايتي لولا ما كان الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامتي ما يا حبيب الله محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل وصل على محمد كما تبني صلي عليه كن صلاة السلام على رسول الله فالسلام عليك تترى من الله وتبقى بلك البراء فالسلام عليك منك فما خيرك من لك سلام كبار كل ما خلاه الله للتهيا بشكرك لا وصلاة كم نسكي تميل من السماء إليك أو نقبا وسلام على طريقة تهدل به من تربة وخسار عبد الله وخمت برب الأشياء قلبي كلمات لاي طامات لاي التي لا يجاوزنا فهم لا فايرون وبيخنا إلى رسنا كل ما لم تمنع وما لم أعلم من الله المكيال انقم المصطفى سلام ولدي وما عزلت في سوى متجددي ويا من له خلف نساء يستدي قل ابتدى لا مدى ينتهي المؤمن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هدينا المدينة تمتعدنا دغم بو ام الله دنا عبادنا نغم ينتمي نيون دغم خرافال جنا rasuulalaay mooy sanu njit ci àdduna di te moo waral yërmande ja lu xedara ba ku la yim kawe naa te nu moom turaamu baax wu yelloo naa loo mën a wax doo a paase baa turum wu baax wa yelloo naa loo mën a wax doo mën a paase baax naa segam rasulallah moom lañu daa woye lamiina moo xëy ni mees kenn du fi des ci àdduna wala zaabi rasool yam limaana ali na baabaka umar usmaana ñoo xar gi yaar ci kër yonen ci àdduna seen poyal ak seen saal jana جنا يا رنبا أبا بكر صديقنا يا نن أبا بكر صديقنا يا نن أبا بكر صديقنا وهو ما يرغي الهوى ذا سداد وعدنا شيخنا mooyu xilaafa sax si da doa duna ginnaaw sëy naa Umar man jooy naa ki daa tëqale dëgg ak nar fii dem na ginnaaw sëy naa Usmaana faana ki yëqalu mboolu mbaati Qur'aana ginnaaw sëy naa Aliyu ndee war naa ki daa bëgg Rasuulu laay bu tiisee dem na mais nag mu ne war moo bëggal Rasuulu yow ma lu ne moo bëggal Rasuulu wala daalim sak ku nekk war na jàpp sa ba yëpp wàccana xex nañu waaye daañu tabi aljana xex nañu waaye daañu tabi aljana waaw waaw xex nañu waaye aljana aljana ginnaaw garay sibeyru kooka bersana tàbbi aljana ginnaaw kër Usbeyru kooka pertana Yasid ragal ñu fa la sant fexe naa buum lu ko Medina ko san lee ñaaw naa fexe naa ba gar na kawar ka naa soo këree ma jëla ndaw sa juum naa be pasan asan Medina jaada tu war naa jëndeeg sa tub Rasulallah ñu war la rus nga jaadatu kindu yaa ka ne moom rey naa asan sa Medina ji jigéen day perte na yesini bañasan mboom lu karena siix ba useyno li kay duna maa yadee mu doon na woote naa nigul ñu bal ka moo moo naan falu na noona bu seen wàcc diine tooñ naa rabul ibaadi waaye laaw muñ naa moxaɗagal miram kuɓa nuray xana moxayɗagal mbiram kuɓan nuray xana wawa moxayɗagal mbiram wawa moxayɗagal mbiram wawa moxayɗagal mbiram lu baytu ñépp a jeex na yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana waaw walaay waaw moo xëy dogal mbiram ku bañ mu rey xanaa lee tooñ waalul bayti ñépp a jeex na lépp a taxul يزيد والو يخمني وزين موم وزخي عدنا شقفت اللي ورنا موتا يزيد خير قايم يعني فبين دانا نيو جوني تلي اتر ووسين وقانتنا نينا قضا دي كل عربية دي قرآن اللي سمعان تخوضو من دول توينا تقول يا ولا الكيفر تلي نيونا نيو الإليف نو فكا قايم ورنا ولا نقلب فيس منعني يا ربنا Ah! ولين خلب قلبك منان يا ربنا وزين قلبك ووا وزين قلبك ربنا يا كده قلب سميرتي نندم جتنا la fee yas mu naan yaa rabbana yaa ki dogal sa si nun dem jot na laxa tàggu ci réew ma ñëpp bokk naan kaa bu dem ira xural kéefar yàgg na sa baay ñoo ko fexel ba génn na àdduna sa mbëggeel ñoom kon kay des na mu tontu gaaña naa leen dogal bu yegg si na yebas muslim rakkam ja mu jiitu boobu dogu na mu tontu gaaña naa leen dogal bu yegg na yabal musin rakkam jaamo jiitu ba ba daw na rakkam jaag si gaañoo ko fekk naa moom foogul ne dañuy xeex ba rey ko bett naa ñu ko wante junniy leetar la ko bind muslim diggante bi mu ko joxee départ agu muslim ñëwee Karbala nekk na dix-sept jours mu nga déparé mu nga déparé Makka àllarba àgg àgg Karbala àllarba awaa la tax nag wasiinu jëngu ah junneelu leetar ba ca ñu ko def wax ne ka ginnaaw nun ay yéefar lanu bindoo nañu la pour nga ñëw nu jébbalu tuub bañ nga bu ëllëgee sunu yoon bu nu taxawee bis benn ca mën noog samaam bu nu lay dina lay loolu tax mu jëngu jox muslim nag départ nag nga nga expecté balaa bala ma agsi am na lu rakkam njëg si gaañu war ko fekk na foog ñu dal xeex ba ñu rey bett na ñu ko waddaree naa junneeg juróomi téeméer jengu naa di bañ gàcce ñu rek a muslim wàcc naa walay nu wala am nag waalul baytu naa walay nu waar am nag waalul baytu naa walay nu waar am nag waalul bayt waawaa wasay nu waar am nag waal waawaa wasay العلق وقلبي بدنا كرب كل باني أباس ونيكنا يا ربنا يا ربنا ولين ورنا وآل البيت نعكرو كل بني أباس ونيكنا قال يا ولسين جابيا Dia tahu jangan sopir bang. Mereka yang lupa na, ya lupa na hati na. Nunggu rambut jangan pasti Mau izah lagi nangka Allah wabar, Allah wabar jalan rabi akbar lana. Amna nyu ayam di kadak belok takkan na. Nyamu andal on am cenyu dek marwatis na. Udah nyu dia suka nya. Nalentar na mulai rasa tu nang mau jaga nang. kàddoom ga dal na seen xol ya bokk naan kaa xiifatunoo sonnatunoo ngir yaa di sayduna sama mooy xaruna su loo wax sotti na ruyu fi teew du fekk gàcce jombe na yowmal xiyaama sama mooy jiitu ruy naa nag si yow yaa jiitu yor dékoore koo xam jàlla na nit jur naa ci Karbala foofu da yaa naa ko fu sit ba mu nga xam naa waaye raa seen xol àndoon naa démb waane tey jii seen jaasi ak yosit booloo naa wala nu jaf ca ndox ma gaaya de kanaan fii doo naan te xam ma jekku na ba mu déparé jëm ca ndox ma fekk yosit mi yor po mi xare bi dafa natt diggante bi ñu waree ak bi ñu waree ak see faraat mu xam ne mar dina leen fi dab ñoom xare euh, ba waseynu ba mu dem na posé na dex gi samp benn drapeau bu xonq ca bopp faraat dex ga ba nga xamee ne aussi nu rëppatal na tëseeg fërsët fërsët naka sang bi foo jëm ci tàngoor yi mu ne ka waa iraax ñoomoo dañoo wax ne dañoo bëgg a mu nekk am naa fa ñetti fan fa laa xëye waaye ñetti fan ñii ñëpp daa si jaa si ak séddoo puutar moo fay liggéey waaye aussi nu bés may mën a rek mu dem am na lu ñu wax seen xataa doon naa dem waane tey di seen jaasi yàgg sit booloo naa wala nu jam jandoo ma dëkk naan bi doo fi naar pexem yesit ma jekku naa mu feeñu leen ñu bañ feeñoo ti ñu bañ waaw mu jaaju ak si naa ah, ah, ah. gaay lu neexul am na mbir mi tànga naa ñu bañ mu jaan yokk si naan ña mu àndaloon lu neexulam na tey ji mbir mi tàng naa. booba dafa xool faraat seen drapeau xonq ba. mu mu dal mbooloo mi wër ko mu taxaw ci digg ba waaye rasulullah joxoon na ko ca dundam benn pas-pas bu suuf su weex nekk mu nekk boo demee ci jamono ba yàgg nga tekki pas-pas bi xool suuf si mu ñuul fa nga taxaw ñuul fa nga war a des moo tax naka mu sërxal ba xool bopp ba gis drapeau bu xonq folot mu geesu gawar gi ne leen ah ñële kat njëbbal lañ wooye woon waaye dootu njëbbal ngir la leen liwaawu laxmar la drapeau ba xonq la xeex la pare leen am na lu ñu ko wax lu neexul am na mi mi tam ndax ñi leen nga dee ci yoonu ngir mar ñi ngus sa ngir mar ngeen ak sëñ naan fii di leen fi naan kon kay tey ji lu neexul na mbir mi tànga na waa jërëjëf yeneen taay sama maam ali na bi taay sama baay faata bintul bu toog sama yaay gas ba meel mu xoota xoot sa bos lay jeex ma ba meel ku sa bos lay waaw waaw gas ba meel waaw waaw gas leen ba waaw waaw ba meel sa bos lay jeex del suun nga yeewu tàbbi aljana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana waaw waaw kas leen dameel mu xóote xóot ku nekk sa bos lay jeex na ku di ñu suun nga yeewu tàbbi aljana jàmbaar jaa nga takku geesu gaayam ya te naan leen gaañu fetal leen seen takkaay ku nekk ngay xas may nañu leen lu tax nag ñu mën a góorgóorlu keroog keroog ku war a ci jullit ñi ca bés ba sa sa jabar jóge na orol ay ni ñëw ci àdduna di la fóotal di la nga di ko gis sa bët moo tax takku nañu keroog am na lu ñu leen wax it walaay ñu xool suuf daka maam yan nin baxoon naan gaa yi fii mooy kadum wa balaa mooy sipe kaay ruy day naa waaye dayam gi du tax ma ñaaw di wàññi may mu naa bërëb noo ko tudde karbala lu tax ba mu xoolee suuf sa mu yor mu ñuul fa mu taxaw ñuul mu ne acier mawdiw mawdiw carbone wa balaa fii nu taxaw tey mooy palaasu mbas bi mooy palaasu njàqare bi fii la nu war a des mustirul biidu umran bahdama waradat min al idaa kulla maswadan min al lilami والكاتبين بالسمر الخط ما تركت أهلهم أغفى جسم خير من أجم بسر ولن تنتفع dee ngir sama ñaadu wa a na leen sama ju mer muy doon na jël gaaya jeex na yësit yoon ni ari jaani noon jeex na no jaasim jayi dal yëbar fas wuy rey fas ànd ak boroom di ma sukkaa ngir jafe na jaasim yëgit yónne koy ba jëkk seyna Useynu ba jaam ka jaam njame posan li metti na dangar ji fes na xol ba naan doole ja ba caram yëpp pase nax na jaasem jaay daal muy waa bale wet gu neeme liggéey na ñolooro ca dégg mandig ma waaye ña mu àndaloon jeex nañu jaasem jaay daal bu yàgga xel naa dem ca njaboot ga moo dawal na jaas ak si jàkkaarloog ñoom ñaaka siri foo bu delloo dangar jam jam yi metti na jigéen ñaa nga takku boole xiif ak mar te naan kaa kiraay tey jii foofu deenu dee fa jot na doom ja lott waaja xam ngir mar naa u fukk jëm ca ndox ma booba dogu naa del ba ti ndoxum fara tenq naa ndox doon xool doom ja fita gaag si rendi kaa doom ja dee u fop ko yëg yaay ja ti naan kaa sa doom ji fettaaka fero mu ñal jiyaar naa jolle leen waalul biiti aliawu tena جلن وآل البيت واو جلن وآل البيت واو جلن وآل البيت واو بكربلاء لدران وروزين قال لين والو البيت اليوتنا بس كربلاء لك هاني حسينو ريني حسينو تكاو تونك خمنا عندي بقال يزيد خمناني demoon na bay naan gaañ a xam ne bu ak say naa naan ñu naan dem leen dogale ka nax ka te ñu gaaw ci jabar gu ba laa ñëw dem leen dogale ka nax ka ni ka kër ka tàkk naa te ñu gaaw ci jabar gu ba laa ñëw seedi waññi may mu na dool ba gaag ci kër ga fekkadañu kay nax ñettali xol keefara bom soxor yàgg naa janug sa tub rasulala di rendi li ñaaw na dawa seynu naanul may mun a naanul xanaa walaynu naanul may mun a naanul waawaaw wasaynu naanul waawaaw wasaynu naanul nu wér waawaaw وزين عن ال وزين عن ال وزين عن القناة لقول على دي بني a naanul xanaa kaw saraa di déeg ba ñuy naane xanaa yaram wa soof mu mer war te bay mun a doom songi gaa ñaaxal te fa soo daanu mboolem yéefar yëpp ku ñëw ba tim ka daw te naan gaa baa ji ñëw na cubat yu mer naa somlul mun njaay la kaddu jaalim ja ak si dog na ba puus siinu ba دي ويتنا لو فريكا فداة وإسابا إني قتلت لكل المهببا منا قتل خير نالي أما وأبا وخير ما يحسبون نصبا كلاك يوم الجمعة لا لبجوين وزين أرزاق كل السماء جوينا jantak bi deew jooy na mboolam la yàlla ni woon kun jooy na bëccëg la woon waaye la ndam gàttaar na lool bëccëg la woon waaye la ndam gàttaar waaw waaw la tar na mu taa deret jàmbaar jojooru na yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana bëccëg la woon waaye lëndëm na lool foo xool mu taa deret jàmbaar ja jooru naa façon waa nga dee di xandu Useynu belee na ñetti jaali yéefar ya gàddaay na naanul ca ndox ma génn ga ba te nu teeg war mu wàcc kenn dootu lekk kenn dootu naan deret xanaa li am na fan ca réew ma beekoor na boobu Useynu nga Badri leeral naa seeni rok rok la nam nga tar na ba ñu agsee tut gaaña fa toog for nañu këyit ñu bi ci tar joolu ma tuutay nu xatlaab safaati xanaa yaakaru nu safaati jaddi yomale saabi yëri gil katit saalile ju seneen gaañee man ka santuma leen woon ngi yéene rewu seynu fob nañu bopp ba tëj ka ci am xam naa ne tuuti jibril ni jaas aksi sàllal naa ab lal ci néeg ba fob na bopp wu seynu teg ca tinaan rasulaay ak sirtu sët bi wàcca na jiyaar na ñu rey ci kaw tooñ ko wàcca na rasuli teew saabaam yi wër ko na ba baajox faati nay jafam na dellu sëngeem di jooy ca wel na lool dellu sëngeem di jooy ca wel ga dellu sëngeem di jooy delloo sa ndeem di joor tar na lool ku ñàkk la jooy ka aseeg wasayno yaa rabbana yaa rabbana te yëpp ku ñoo ba tiim ka jooy di jaale rasulallah sa tambareer naa waaye turu du rabbana مريد الولد ولا يقول ربي خير ما تريد هدي لنا رلوانا وتسليما لكل ما تريد يا أكيما يا ربنا